asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen ziar naa leen sama gars yi naka dimanche bi ah nga laxu dimanche du fi mën a du ci mën a ñàkk de waaw waaw waaw yi ñamu ñamu sukkar yi waaw ñamu sukkar yi dimanche ñu dóor nga laxu vite faire bien faire ndax nga laxuñu woon ci pakk yi waaw koy dama ko dencoon nañ ko nga lax rek waaw nañ ko ngalax lax wut naa fi sama caakiri boo xamante ni man nag caakiri damay bëgg di ko sebet waaw parce que léeg-léeg dafa am ay ay tuuti suuf ay tuuti grain yoo xamante ni Euh, daf ciy nekk donc damay sebet def ndox bu tàng euh, bàyyi ko mu sekkee après mu dugal ko ci micro-onde bi buy ba nag buyu buy bu yàgg la waaw buy bu yàgg moo tax it gis nga ma nga mel ne tige dege te defaguma tige dege waaw kay léegi nag euh, caakiri bi bu naanee ndox bi ma def ko sama saladier def bër def noix de muscade daal di koy dugal ci micro-onde bi ba mu ba mu suus bu fekkee amoo micro-onde deg tegal sa inde maa la ko wax daal di koy tayaat mu dellu siwaat waat nooy nepp ok su ko defee euh, ñu daal ci def beurre euh, def noix de muscade voilà dugal ko quelque minutes comme ñun ñu nekk fii nii Europe dafay des fois temps dafay manqué xaw a naqari teg ay indeeg yooyu raktak nga dugal ci micro-ondes bi gis nga mu génn nga am sa caakiri bu nooy nepp mais nag euh, toujours dañuy am option deuxième option boo xamante ni da teg sa inde daal di ko ci tay voilà am sa texture boo xamante ni mooy bu baax bi euh, tuuti raisin waa ko raisin bu xees beeg bu bu kii bi laa am tey bu xees beeg bu ñuul bi waaw raisin métissé bi neex gi mu neex layaa ngi ciy bëgg rey boppam waaw léegi nag euh, segg naa sama buy tigadéga bu set wecc nag laa am naa ci sànni tuuti euh, Nutella voilà c'est optionnel ku ko bëggul mën nga ko ci bañ a def voilà léegi-léegi ma dégg tigadéga yi dafay am salté il faut que nga segg kook yooyu waaw kay saa saa moom dëgg la léeg nga tomb ci ay tigé-tigé yoo xamante ni euh, dañuy jël bakkan yeeg xollit yépp walaale ko ci biir ba nga xamante ni dafay am dafay xaw a salte daal voilà léegi yooyu yëpp baax nañu segg ko mais comme bii maa ko gis xool ko sama bët yi waaw koy xool ko bu baax nga xamante ni <laughs> amul benn salte waaw koy ay waxlaay ba ñu daal di ko ciy jaxase waaw jël sunu fuye daal di koy fuye te man nag mosuma defaree nii nga lax waaw mais léeg nga dugal dugg ci vidéo yoo xamante ni Euh, nii la ñuy defaree ngalax ma ni xaaral ma essayer ko xool lu muy joxe mais même résultat bi la rek ah que boo jàmbee tigadége ak buy bi parce que man sama yaay noonu la ma jàngalee def ngalax euh, bu da bu dee ndar dañ ko doon dëbb dañu doon dëbb buy bi ak tigadége bi ba mu jaxasoo nga daal di xooj soo xoojee bàyyi ko ba mu fanaan waaw koy wala nga may ko heure yu baax ba mu sekki nga daal di jàmb segg am mélange bi nga xamante ni moom laa am waaye buy bi yéen buy bi li mu xonq moom ëppul waaye saf na de waaw buyu daaw la waaw bii est-ce que du buyu daaw géej <laughs> mais yàlla baax na léegi ñu yëngal bu ñu amee texture bi ñu bëgg sàppali def suukar hmm, def euh, essence vanille def euh, essence euh, muscade def fleur d'oranger sànni ci sunu sunu caakri wàññi naa tuuti tuuti soowu ngalax donc moom laa réservé nii pour suñ koy lekk nga xamante ni dafay sekki ñu daal di ko ciy dolli waaw damay koko man nag damay koko dama tibbal léewa comme moom bëggul koko man damay jël koko def ko ci léeg-léeg ma def banaan def pomme boobu dinañ ci ñëw parce que dafay nekk beneen façon ngalax boo xamante ni du à la simple daal koy pare na de pare na sama gars fu ngeen toogee ba dimanche bi di ngeen ngalax waaw koy man tey ci dimanche bi ngalax moo nekk sama xol mais nag avant may ngalax dinaa dóor benn sandwich wala benn omelette am naa fi benn sandwich jambon bu baax boo xamante ni moom lay dóor ba pare teg ci sama ngalax waaw koy dégg jàmb comme Ricardo nee na ñamu suukar dessert la moom du ko reeree mais yàlla baax na waaw koy aywa je vous souhaite une très bonne dégustation waaw koy ku ne ñëwal jël sa kuddu ñu tibbandoo ko rek ku nekk andil sa pot ma tibbal la waaw koy comme ni ñu koy defee saa su nekk bu leen fàtte abonné wu nag ñi abonné wu tamit bu ngeen seetaanee dafay gën a neex waaw koy jaajafal naa leen sinon Alphie Cuisine ci plateforme yépp YouTube Twitter TikTok euh, Facebook déggal ma naan Twitter YouTube Instagram Facebook TikTok ñoo koy jaajëfal naa leen sama gars